Serigne Abdou Fatah jërëjëf Mbacke damay faral di wax wax joo xam dafa xorom waaye dafa mat a bàyyi xel dama ne ak bokk concours wanaas la ku am bu ni ko ansi mënu jël bii loolu mooy li yàlla dogal nii ngay doxale mbokk gi yàlla yàlla guddal saw fan te wéral la yàggal fi sa bàyyi bu baax ba Cheikh Mamadou Bachir sëñ Xaadim jërëjëf ñan mag ju baax ji nga xam ni wax naa léegi ay qualité yu ne ci moom mooy qualité yu jullit wax naa léegi qualité yu nekk ci moom mooy qualité mbokk mooy qualité diggante mag ak rak su ko defee moom dana gaaral kilifa yi fi teew yëpp ak yi fi ñëw ta su ko defee ñu doog a wéyale kaddu gi sëriñ bi kaddu gàmmoo noo ngi leen di sant bu baax ci taxawaay bi ci bis bi ci jàpp gi ak ci fonk gi ndax gis naa fi ay kanam ak ay nit ñoo xam ne ba bis bii sosoo ba léegi kenn du leen fi njëkk kenn du leen fi mujj loolu nag mooy kóllëre kóllëre googu gi nga xam ne suñu borom da koo fonk lool ba ne bu ëllëgee dana ko laaj wa awfu bil ahdi inna al ahda kaana mas'uula kóllëre googu yi nga xam ne sàmm ngeen ko te sëñ tubaa rek tax ngeen sàmm ko ñu ngi ñaan ci darajaay sëriñ tubaa yàlla leen ko suñ borom fay di sant mboolem jànkatu xasida yi ñi nga xamee ne ay kuréel lañu yor ak ñiy jàng jàngum benn benn ak ñi nga xam ne dañu durus ñëpp sëñ tubaa rek leen fi indi moo leen fi bàyyi moo leen fi dajale di sant mbokk yi nga xam ne dañoo bàyyi ko Touba te daje dajale ay coon yu bëree bëri ngir ñëw fekk si bis bi ñoo ñit ñoo ngi leen di sant sant bu kawee kawe di santit mboole mbokk moo xam ne ci ak jege ak ci sori jàppale nga ko ci bis bi xeebu ci dara yéemu ci dara lu ci waaye def xam na ne sëñ Touba tax nga def ko ci moo ngi ñaan lu ci waaye def rek yàlla na la ko sëñ Touba fay

wàccee sunu géem fi moom la ñuy ku sopp Serigne Fallou Fallou ku sopp Serigne Fallou Fallou ku sopp Serigne Fallou lool wala fu ne nga koy woo gis am na diir gu muy pare Cheikh Abdoul Fatah sama mooy sunu géem fi moom la ñuy خير المرسلين وقع بحسب له يا خير المرسلين وقع بحسب له حسب له وخير المنسل وخير المنسل حبابي بسم الله حبابي حسب له واجعل كلامي واجعل كلامي راشدا راشدا ومرشدا ومرشدا وفكرتي نبي وفكرتي نبي وقلبي ارشدا وقلبي ارشدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp. Cheikh Abdoul Fatah nee na mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp. di leen siyaare. te di leen siyaare. te di leen baalu xaq. te di leen baalu xaq. di ñaan suñu borom boole ñu baal ñu ñëpp. di ñaan suñu borom boole ñu baal ñu ñëpp. di tuubal yàlla bu wér. di tuubal yàlla bu wér wér. ñu jégalu ci bu wér wér. di jégalu bu wér wér. te te te ñaan mu jégalu ñu bu wér. tey ñaan mu jégalu bu wér wér. jiital ci siyaar bi ak ak nuyoo bi. nee na Cheikh Abdoul Fatah nee na mu ngi jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi. Euh, Cheikh Mouhamadul Mountakha. Cheikh Mouhamadul Mountakha. di ñaan suñu borom guddal aw fanam lool. di ñaan suñu borom guddal aw fanam lool. te euh, wane kéemaan ci moom. te wane kéemaan ci moom. ba mu jëf jëf joo xam ne. ba mu jëf jëf joo xam ne. kenn mësu ko jëf. kenn mësu ko jëf. ndax. ndax. képp ku fi teewal sëñ Tuubaa rek. képp ku fi teewal sëñ nga fay jëf loo xam ne kenn mosu ko jëf. ko jëf. nañ ko ñaanal sëñ Muntaxa bu baax. kon mu yàgg loolu tamit. loolu day wane ne. ndax loolu day wane ne. dundal na suñu xol bu baax suñu. nee bu wér a wér a kon yàlla fi yàgg lool. kon nag yàlla fi yàgg lool tànn ko wér. ñun murid yëpp. ñun murid bu nekk. murid nekk. war nga war ngaa saxal dog boo xam ne. war ngaa saxal dog boo xam ne. da ko ci ñaanal. da ko ci ñaanal. ndax yéenam àgg. ndax yéenam yegg. ndax li mu wax ba li mu wax bëgg démb. ndax li mu wax bëgg démb. ci sàkku xam-xam. dafa jot sëkk. dafa jot sëkk. am na mbokk mu wax léegi nii. am na mbokk mu wax léegi suñu aas mi doon waxtaan. bari na noonu jóg. mu ne bari noonu jóg. di di xeex tasawuf. di xeex tasawuf. bu ko jaarale ci xam-xam. bëgg koo jaarale ci xam-xam. ñooñu nag. nee ñooñu nag. seen tont seen tontu. mooy li si mooy mooy li si Mountakha wax wax rek. ñëpp nañ jàngiwaat. ñëpp nañ jàngiwaat. sàkku ci xam-xam. sàkku ci xam-xam. ndax ñu mën a jànnoog ndax ñu mën ndax ñu mën a jànnoog ñooñu. ndax ñu mën a jànnoog ñooñu. xam-xam rek. nee xam-xam rek. ci la ngeen ci la ngeen mën a xeexee. ci la ngeen mën a xeexee. waaye du doole. waaye du doole. du xaatar xaatar. du xaatar xaatar. dara du dara. xam-xam xam-xam képp. lu xam-xam képp. ndax suñu taxaa jag soññuwaat nañu bu baax a baax. ndax moo tax suñu taxaa soññuwaat nañu bu baax a baax mbaa. yàlla na fi yàggul lool. yàlla na fi yàggul lool Mbàkke Téwél. moom njabootu suñu Tuubaa gépp. ak njabootu suñu Tuubaa gépp. di siyaare Sëriñ Abul Baraka. di siyaare Sëriñ Abul Baraka. moom Cheikh Mouhamadul Fadal. moom Cheikh Mouhamadul Fadal. ñaan yàgg fi lool te wér. di ñaan mu yàgg fi siyaare Serigne Modou Mamoun Niang. di moom Serigne Hafia. moom Serigne Hafia. ñaan mu yàgg fi lool te siyaare ñëpp. siyaare ñëpp. di am mbégte bu wér. di am mbégte bu wér. teew ci jotaay bii. teew ci jotaay bii. ndax mbir yu bëree bëri. ndax mbir yu bëree bëri bëri. ndax ndax ndax bu ma war teew la.

suñ Bachir wax na ma ne ma. suñ Bachir wax na ko. bi ñu mujj gis sëñ Fallou ñoom ñaar. bi ñu mujj gis ñaar. moom sëñ Xaadim. moom sëñ Xaadim. dana leen. dana leen. yéen ñaar day. yéen ñaar def nii rek. te booba léegi noonu lañ def. te booba ñu bëree bu ñu gisee sëñ Xaadim. bu ñu gisee sëñ Xaadim. dañuy la. dañuy xam ne rek benn yoon. te ñoom ñaar mosuñu tàggoo benn yoon. ñun ñii nee na ñun ñii sëñ Abdou Fatah mii. ba ñu juddoo. ba ñu juddoo. ba ñu ba ñu màggee. ba ñu màggee. ma màggaguñ sax. màggagul sax. waaw ba fi mu toll nii. waaye ba fi mu toll nii. mosuñu gis ñu mosuñu gis ñu tàggoo. mosuñoo gis ñu tàggoo. sëñ Basiiru. sëñ Basiiru. sëñ Falloo ko jur. sëñ Falloo ko jur. sëñ Xaadim. sëñ Xaadim. sëñ Afiya ko jur. sëñ Afiya ko jur. sëñ Afiya. sëñ Afiya. sëñ Fallu. sëñ Fallu. ñoo bokk soxna Awa Bousso. ñoo bokk soxna Awa Bousso. kon lépp la. kon kon nag noo bokk lépp. noo bokk lépp. noo bokk lépp kon suñu xaadim bu wootee lii. kon suñu xaadim bu wootee lii. danañ ci sawar lool. da nee sawar lool. danañ ci bëgg lool. danañ ci bëgg lool. ci am yaakaar yaakaar lool. ci moom bu baax nag. am nañ yaakaar ci moom bu baax nag. ndax. ni ko sëñ Mamoun ma waxee léegi. ni ko Cheikh Mamadou Mamoun nag bu baax mi waxee léegi. xaadim mënu mënu mënu bëgg dara. nee na sëñ xaadim mënut a bëgg dara. loolu sëñ Tuubaa. loolu loolu sëñ Tuubaa. ndax sa ndax ndax ndax sëñ Tuubaa. ndax sëñ Tuubaa. képp koo xam ne samaam àndoon na sëñ Tuubaa. képp koo xam samaam àndoon na ak Cheikhul Khadim. day topp deret. day topp deret. képp koo xam ne samaam dafa bëggoon sëñ Tuubaa. képp koo xam samaam daa bëggoon sëñ Tuubaa. bëggal googee. bëggal googee. day topp deret. day topp deret. day ñëw a mel. waaye mbàkk yi nii daaw waxoon naa ko fi mujjee. Cheikh Abdou Fatah daaw waxoon na ko fii fi mujjee. daaw jéeg wala daaw jéeg. sëñ Xaafiya. sëñ Xaafiya. bëggoon suñ tubaab la. ku bëggoon suñ tubaab la. ku ko liggéeyoon la. la. Fane Diallo damay wax suñu xaadim ñang nee na Fane day wax suñu xaadim ñang am daamar duñ ko jox am daamar duñ ko jox ma ne ko tabarkaal di ko yëm ma di ko yëm nag mënu ma nag saa daa fekk fekk suñ tubaab gànnaar moo tax moom moo waral lii moo waral daamar bi moo tax bu moo dara yëm moo tax sëñ Abdou Fara ne liggéey na suñ tubaab loo xam ne nii faw faw mu jëriñu ci. faw mu jëriñu ci. amoon na amoon na tool boo xam ne. amoon na tool boo xam ne. sëñ bi waxoon na ne. sëñ bi daa waxoon ne. ku xam turu tool ba rek doo lakk. ku xam turu tool ba rek doo lakk. te sëñ Afi moo doon jëwriñ te sëñ Afi moo doon jëwriñ ja. nag. kon nag. nii rek nga mën a mel. na nga ci sax dàkk rek yàlla na ci sax dàkk na nga ci sax na nga sax ci loolu rek na nga sax ci loolu rek Mbàkke ñii nga àndal ngir Sëñ Tuubaa ñii nga àndal rek ñii nga àndal ñii nga àndal ngir Sëñ Tuubaa nit ñii nga àndal ngir Sëñ Tuubaa bu leen woon bu leen woon dara bu leen woon dara loolu Sëñ Tuubaa loolu Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa dong nga fi nekk Sëñ Tuubaa dong nga fi nekk moom dong moo mata wane moom dong nga mata wane moom moom dong nga mata wane ndax jamono dafa doy waar ndax jamono dafa doy waar yàq yàq eh, aaj ju fa ajin tamit aaj ju fa ajin am nañ yaakaar am nañ yaakaar jur ne. am nañ yaakaar bu wér ne. suñu borom mën na ko saafara. suñu borom mën na ko saafara. ci bis bi. barkeb bis bi. barkeb borom bis bi. barkeb bi. gi ñu jëm tamit. màggal gi ñu jëm euh, comme ni ko suñu Mamadou waxee léegi. comme ni ko suñu Mamadou suñu Mamadou waxee léegi. nañ nañ noppi. nañ noppi. buñ ko waaj. gën a waaj nañ mm. nañ ñëpp noppi sëriñ bi mm, nañ ñëpp rek nopp nañ ñëpp rek waaw sëriñ bi nañ ñëpp noppi damay dégg damay dégg léegi léegi léegi kenn naan ndax yaa ngi waaj màggal gi damay léeg-léeg day dégg ñu ne la sëriñ bi ndax yaa ngi waaj màggal gi waaye bu ñu ko laajee nañu noppi dañ sëriñ bi nee na bu ñu ko laajee nee noppi na rek ndax la jëm ci màggal ga moom ndax la jëm ci màggal ga borom fàggu na ko bu noppi borom fàggu na ko bu yàgg nag jërë ngeen jëf kon nag jërë ngeen jëf yàlla ñu fi teewee ay at yàlla ñu fi teewee ay at yu bari te daje ci ngërëmul sëriñ bi waaye bëgg na ñëpp xam ne waaye sëriñ bi nee na bëgg na ñëpp xam ne Mountakha. sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wér. sëñ Mountakha daal yàlla fi yàgg te wér. yéenam yàlla yi. Mm, mi ñuy dundalaat mi ngi ñuy dundalaat bu wér-wér. nee na mu da ko ñëpp ñaanam yàgg fi. ndax ni muy ni muy ndax nii muy doxee. suñu xol suñu xol suñu xol suñu xel dal na ci bu baax. nee na xol sedd na ci suñu xel dal na ci bu baax a baax. ñun ñëpp. ñun ñëpp. am nañ ko dog boo xam ne. am nañ ko dog boo xam. dañ ko war a ñaanal mu yàgg si. dañ ko war a ñaanal mu yàgg si. ndax li mu wax. ndax li mu wax. muy xam-xam. muy xam-xam. ñëpp la concerné. la concerné. li nga xam ne fi ne. mooy ngànnaay li nga xam ne. moo fi des. ni te ni mu ko waxee.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 fukki fan ak juróom ñett ci biir safar mooy bés bu mag boobee waral ñéppi safar